Opinion libre. Opinion libre. La voix du peuple. Opinion libre. Opinion libre. Opinion libre. La voix du peuple. Opinion libre. chers internautes de Opinion TV euh, dal leen ak jàmm mbégte la ñuy am saa su ne euh, di leen dalal euh, fii seen kër Opinion TV fépp foo leen nekk ci àddina ñu ngi leen di di leen jox seen wàccuwaay entretien spécial boobu ba tey yéen a koy nëgë ni xam ngeen ki nga xamante ni moom la ñu nar dalal tey fas yéene sekk ak moom waxtaan bii du ma def lu dul. nuyu ko dalal ko bàyyi ko tamit mu nuyu yéen ñi nga xamante ni yéen a bàyyi seen yitte yëpp jamono bi jàkkaarloo ñun di ñu seetaan sëñ bi Ahmed Khalifa Niass baa ngi lay nuyu bu baax di la dalal ak jàmm ci entretien bi nga xamante ni accordé nga ñu ko waaye it euh, mu jur euh, coow data bi ñu ko publier léegi ndax ñu bëri euh, dañu jàpp ni rek waroo def sorti ndax ñaaw njott nañ ni que am na loo bëgg leeral wala am na loo bëgg tontu euh, dañ ci ñëw euh, directement muy ay accusation yoo xamante ni euh, def nañ ko ci teg nañ ko ci sa ndodd ak ci sa njaboot la ñuy wax waaye laata ju dugg ci waxtaan bi bëggoon nañ xam li tax nga bëgg tontu jamono boo xamante ni ñu bëri dañ jàppati waroo génn di tontu ki nga xamante ni mooy Mollah Morgun waaw dëgg la gisee mu ko noonu ndax sax xeeb nit dafa dul sama wàll dul sama éducation waaye ma wax ne su fekkee ne yàlla ak yonantam mu ngi tontu abu lahab bu lahab moo gi bàyyi yonent bi ñoo bokk mais mu nekkoon ci noonam yu gën a fés sosol ko ay wax wax uh, ak i jëf yàlla tontu ko moo tax tey ñuy jullee uh, saaru tabat yadaa waaye su fekkee ne yàlla ak yonent ba nañu toll ak nit euh, euh, maanaam appel hab toll terewul tontu nañ ko kon ñun dañoo war a jaar yoonu alxuraan waaye waru ñoo wax ne diw tolloo maag moom ak nii la toll rek naa laa toll yàlla xam ku gën mm-hmm. am na solo euh, leeral yooyu nga andi ay ci dañuy waxtaanee rek li nga xamante ni moo waral jotaay bi muy ay accusation yoo xamante ni Euh, dégg nañ ko euh, defe naa euh, ñëpp jot nañ ci sama éducation nag mooy ma ma bamtuwaat kàddu yooyu nga xamante ne rek kii di Mollah Morgun yëkkati na ko teg ko ci sa der ak sa ndoddu famille wante laata ñu nga may tontu sax ci point ak point ñi bëgg ñëw bëggoon naa xam déjà rek bi nga seetaanee vidéo bi noo ko jëlee. amul lu ma ko jëlee ndax dañu nekk ci jamono joo xam ne mhm. sama baay sax bind na ko nee na fi aaxiri dahri zamaanal jahaalaati mu ne ñu ngi ci jamono yi nit ñi jànguñu réer gi bare donc euh, lu rafetoon day ñaaw lu baaxoon dañ koy bonal loolu ñun xam nañ ko ca bu ñuy xaleel ak léegi waaw waaye man sama bopp du tax ma tontu waaye nag am na loo xam ne euh, mbir waru ca àgg ay waajur ak i doom say doom ak say sët nañ ñu la waxee rek ci sa jëf say waajur ñu wax sa jëf waaye nag bu jàllee ba ci foofu ñu ngi tooñ ay jàmbur yoo xam ne euh, yow mii seen waajur da nga leen a jàng jàngal yar leen pour ñu mën a nekk ci benn sécurité kon nag ku leen laal yow yaa leen war a défendre waaye bu doon sama jëm job opp ji rek lu du benn problème man lu neex waaye wax ma du ma déranger te du ma tontu Tay ya ya, eh, eh, niñ ya eh, ko waxee yow yaa engagé wu yow ya jaxasoog ñi nga xamante ni ñoo nekk ci langue politique bi tey ñu dem bay atteindre sa famille ñoom nuñ ko jëlee ginnaaw yow ni nga ko waxee rek yàgg nga di dékku et lu ñëw rek mën nga ko mën nga jàkkaarloo ak ak moom. waaw ndax xam nga itam yàlla. Mhm. dafay def tey boo toogoon sa assurance ba oto jógee fa la ñëw riisu la wala mu yàq sa oto mhm. xam nga assurance bi dafa ne bu loo xam dara. maay defar lépp maa lay luyeel sax oto booy daw ba sa oto pare lu demee nag ñu am nañ ko ndax ba la nit waxee lu ñaaw yàlla daf la ci yéegal maqaama waaw nuñ ko nuñ ko jëlee jëlee rek mooy njaboot gu yaru ñoom duñ tontul seen bopp dañu toog dégloo rek boo waxul dara duñu wax dara boo waxee dara it ñu xam ne yow yaa leen sañ wax dara rek nga wax ko uhuh. ñoom ñu jàngee ci pour ëllëg pour seen njaboot uhuh. hmm. ayca euh, bëggoon nañ ñëw ci accusation yooyu nga xamante ni rek yëkkati na ko teg ko si sa njabootu boobu hmm. euh, euh, tey maanaam mën nga wax ne mhm. dama ko tënk ci juróomi point waaw yoo xam ne dama koy boole mhm. tontu ci ci juróomi point yi loolu féetee boor premier point bi mooy Salma li mhm. nga xam ne sama doom la te wax ne moom mooy sama taaw te takkuma ndeyam mais carte d'identité ma ngi nii extrait naissance ma ngi nii mu ngi juddu 9 novembre 90. sama taaw mi ngi juddu sama taaw dëgg-dëgg mi ngi juddu octobre 1967 ma tuddee ko Abdou Aziz Al Amin. taaw góor mhm. kooku dundul. Mhm. sama taaw bii dund tey mooy xalifa ma tuddee ko sama baay mi ngi juddu le premier janvier mhm. ca kawlax gannaaw kooku nag euh, sama taaw bu jigéen tam Kaolack la juddoo ami waaye gannaaw loolu sama doom yi ci des yëpp fii lañ juddoo dakaar kii nga xam ne mooy Salma mooy caat ci yaayam yaayam am na fi ñeenti doom ki ñu taawloo mooy Baye Niass moom cité woon na ko ci bi muy wax affaire blanchiment Babacar mu nga ne la toog moo topp ci moom Aminatu moo ci topp mu ngi doctorante euh, aux États-Unis mm-hmm. moom Salma moom mooy caatu soxna soosu nga xam ne daaw jéeg la génn àddina muy bokk baay ak maître El Hadj Ousmane avocat nga xam ne mooy mi ngi gaañu daaw mm-hmm. donc ci famille yi xam lañ bokk mm-hmm. Salma boobu du sama taaw du sax taaw ci sama diggante ak soxna Xali Sarr moomu waaye caatam la Euh, kayit yi dana ko wane quarante bi ngi noonu euh, extrait de naissance ma noonu te extrait de naissance bind nañ koy ndeyam koy baayam donc kooku loolu waaw loolu leer na ne loolu ay fen la ndax man ay document laa teg mm-hmm. numéro ñaar mooy euh, li wax samay doom dañ doon def blanchiment d'argent ci ay milliards li li am mooy loolu bu amoon il faut que dana am procès ñu àtte leen ndax kenn du def blanchiment d'argent ay milliards te yoon jàpp la àtte la tëj la euh, ay ki, euh, ay renseignement ay faux renseignement ñëw na ci niveau procureur mu woolu leen brigade de recherche ñu seet leen lépp justifié aw yooyu ñu leen dem leen ñibbi yéen doo ñu fa sax kon li ci am mooy dañ leen tuumaaloon. waaw waaye tuumaal bi du diw moo leen tuumaal xëy na ay renseignement anonyme xam nga nit ñi rek. Mhm. mën nañ nga dugg sa oto nangam ñu ne kii nangam nangam. Mhm. waaw ñu ñu yónnee ñu ba loolu amee ñu ne nañ seet. Mhm. bu dee loolu dëgg la ni leen defee rek ñu def leen ñu def ñëpp. bu dul loolu ngeen wax ma bañ seetee pare ñu ne ko gisuñ dara ñu leen di ndax ñii dañuy liggéey ci àddina bi euh, kenn ki bi ngi nekkoon Amérique nekk fa. Euh, ki gën a rëy lu mu jaay euh, oto mhm. jëlee fa alalam kii sax moom euh, Paris la juddoo nationalité français day liggéey Europe ci Allemagne yeneen ni réew mhm. di fa am alalam di liggéey itam Dubaï am ñu am fa seeni kër ak yëpp mhm. ñu gis ne dara taxaw lépp leer na naañ loolu boo ko xoolee ci YouTube da ko ci YouTube bi exactement ak euh, ni mu demee noonu waaw en tout cas ci jamonoy Ablaye Wade la du sori deux mille dix waaw euh, léegi nag loolu leer na nañ xam nga koo xam ne procureur moo la woolu nga dem brigade de recherche buñ la bàyyee ci niveau boobu mooy dara taxoo la loolu féete d'abord. mooy bi waaw deuxième point bi. Mhm. mooy li mu wax ne euh, Abdou Diouf bind na ko effectivement ci livre mais loolu man sama bopp sama livre bu tudd ma vie mhm. am na euh, kii version boo xam ne titre bi rek moo changé mooy le marabout et le prince mi ngi yaay armatan foofu na ko jënd livre baa ngi fi man sama dund yëpp dama ko tracé amul dara lu may nëbb amul dara lu muy nëbb ndax musuma def lu ñu muy nëbb du ma def loo xam ne seetuma sama dégg teg sama borom mhm. ndax ñun soxna si ñu jur mu nga nële moom nekk na fi bi nu génn àddina déggul sax wolof moom alxuraan rek ba xëyee ci alxuraan lay xëy ci lay gont ba ni mu génnee àddina maanaam moom xamul lu bon ba dañu jàngal lu bon suñu bàyyi noonu xalifa ñes ñëpp xam nañ ko ci xam-xamam ak wilaayam ak may yu ko yàlla may foofu nag mënoo fa yaroo di di def yenn yi parce que ñun tarixa tijaan bi ñu bokk nekk ci ay muxaddam am doo ci yéeg maqaama su fekkee ne da ngay njaaroo waaw wala ngay def dara lu araam boo ko defee doo doo yéeg ci wilaaya ki te ku nekk tijaan rek bu nga am bu nga cee nekk wàlliyu bi ci des mooy doo mukk njaaloo kat mu nekk borom alal bu lew njaaloo day tëj wërsëg xanaa ñi nga xam ne seen wërsëg wërsëgu seytaan la yàlla nañ ci yàlla musal kon nag loolu euh, mënuñ ko am na ñaar yoo xam ne mënut a ànd waaw yoo xam ne mënut a ànd euh, mënoo nekk pompier ba pare di taal di taal safara di ko lakk da nga nekk pompier wala nga nekk pyromane waaw ci côté boobu yaakaar naa loolu itam leer na man lépp ab du juuf bind ci ba ma jaaree Niger man sama bopp bind naa ko mi ngi fii te boo ko bindee du boo ko xoolee du juyoo waaw du juyoo Abdou Diouf wax ak li ma wax du juy xëy na man gën naa leeral la taxoon ba ma ñëwee euh, Niger ñu téye ma dama niroog suñu benn na mbokk mauritanien boo xam ne Niger la juddoo doon fu bëgg def coup d'état waaw ba ñëwee nag ñëpp nekk ku tudd l'imam Chafi am na doom boo xam ne sax dana ñëw fii ci président Macky ak ñu kuñ xam la daal ci réew yi l'imam Chafi boobu nag duñ maa ay nit dañ maa ji si aéroport bi mu niroo moom ñu ne leen ki def ko détaillé ma nga na le waaye loolu itam euh, ni mu mujjee leer na mooy ba ko waa ji woowee avion am la ma yónnee avion présidentiel moo ma jël si ok kon nag loolu itam ma leeral ko mu leer naañ euh, donc yaakaar naa ne ñeenti point yooyu la moom nag mi nga xam ne moom mooy Morgan moomu dafa dem Canada demander réfugié bi mu laajee am ñu ko ne ñaar rek moo tax ñu may la fi réfugié imma dangay wax ne danga nga génn diine lislaam sëriñ si bëgg laa rey mhm. nangam nga daw wa imma nga wax ne ci ñaari tuur yi nga bokk sinon doo ko am ndax politiquement Sénégal mënuñu ma may seen ku fi dëkk li réfugié politique ndax réew la moo xam ne l'opinion est libre li d'ailleurs le huit bi le huit février ci la war a ñëw ñu wax ko ndax may nañ ko wala gàntu nañ ko. kon jamono bi mayaguñ ko ko. déedéet euh, toujours boo ñëwee ak loo mën a wax. Mhm. même bu dee ay fen la dañ lay defal provisoire ndax mënuñ laa ba wax nga dem fee ñu rey la. Mhm. dafay am période boo xam ne dañuy étudier sa sa kii. kër baayam ngi lakkoon moo ko lakkalu moom moo yónnee dégg nga sax après ci beneen émission muy wax ne na ngeen jël pono yi euh, sës ko ci kër yi taal ko. ndax am nga wax. waaw li ma wax lu ma leer naa ñu la yéen ñëpp a ngi koy déglu moom mi ngi am xam nga mboolem euh, kii live yi mi ngi mi ngi gannaaw bu mu waxee loolu man dégg nga gannaaw bu waxee loolu gannaaw bu ñu lakkee kër baaye wax na fi di digal ne Sénégalais yi ne nañ lakk kër yi nii lañ koy defee xam nga lu ñuy wax langage corporel. Mhm. manam yow mom la arab di wax lisarul hal mm-hmm. da nga waxe no xamne sax yaangi trahir sa bop mm-hmm. donc def ko def pour lan pour wane né Macky Sall euh, kii nitam ñom ñofa dem di fa lak ay di lak keur bayam parce que Macky Sall mom rek la ragal pour lolu mu wersu ko ci dossier bi pour ñu accorder ko mais loolu ñàkk a jàng la jàngul loolu yëpp stratégie la pour am asile politique. ci waaw pour am asile politique. ci kaw loolu. Mhm. kon nag li am importance. Mhm. mooy ñu xam ne gis nga nit koo xam ne da ngay wax opinion. Mhm. dana koo xam ne joteewul moom dara. noo su fekkee ne sax moom ma ngay naan wala muy tux wala muy njaaloo lu ci sa leen dara. yow opinion waxal opinion ne lii am na ñes lii mu wax ci. ànduma ci wala téere sàngam téere sàngam mais koo xam ne jotu leen dara mhm. waaw ndax mos nga xaw ma ko xam yaayam nag boobu gone laa daan na ñëw ci kër ga di ànd ak taalibe yi mais am na loo xam ne du ma ko nettali ndax rafetul duma ala xaal man du ma njaalo loolu mooy day am da la ci du ma ko wax suturaal naa yaayam jooju nag mhm. na jot nga déggante moom bi coow li amee léegi. Hmm? déedéet man mooy juróom bu jigéen de jot déggante woo ak yaayam. déedéet xamatuma sax loolu dafa yàgg na juróom fukki at. d'accord man taaw am na cinquante quatre ans. sama taaw am na cinquante quatre ans te boobu laa jógee kaw la. Hmm. li xew depuis cinquante quatre ans cinquante cinq ans est que loolu <laughs> naa ko fàttaliku. Hmm. dama ko fàttaliku. noo gisee euh, phénomène boobu jamono bi euh, fii ci Sénégal euh, ñu toog kenn déclare auto autoproclamé boppam activiste la. Mm. xëy di xaawi sutura nit yi bu xëyee dugg ci kër kilifa diine yi ku nekk mu xaawi suturam dindi li nga xamante ni mooy ormam nan nga ko jàngatee laata sax yat bi di dal sa kaw. déedéet jamono la rek. Mm-hmm. boo xam ne dafay ñëwee noonu jamono yi nii lay def yàlla ne na wa tilka layaamu nu daawilaa bayna naas mm-hmm. maanaam. ni guddeeg bëccëg di di wuutu bii lëndëm bii leer àddina bi itam yëpp yu fi day awante rek waaw kon nag li am importance mooy ñi koy def ñëpp jànguñu parce que dañu foog ne boo dawee dem Gambie mucc nga léegi nekkatoo ci moomeelu Macky Sall mais boo dawoon dem Japon it buñ la laajee Japon Japon dina la joxe moom tey bu ma euh, sama avocat digal lañ ma ko mooy dama defal ko situation directe fii tribunal Dakar ñu condamné ko ñu jox ko Canada euh, Canada exécuté ko jàpp ko indi ko wala ñu tëj ko foofa beneen bi c'est simple mooy ma jël avocat euh, Canada am naa fa sax sama benn jarbaat boo xam ne sax naa am avocat la wax naa man tey que li ñu xam mooy même moo bindee ambassadeur u Canada ne ko kii lii la wax ci man te dof ma tooñ te ma nga làqu Canada bu ko yónnee réewam ñoom dañ koy jàpp parce que Canada du la làq pour ngay saaga ay jàmbur su fekkee nag ne da nga am opinion mu leer leen ne yow tooñoo kenn yow ci misaal euh, non ñu xam ne yow ay opinion nga am mhm. euh, gouvernement di la euh, bunduxataal wala mu tëjoon la ak yooyu mhm. kooku waaw ñu làq la pour ne yow sa opinion mais opinion lañ xooxuñ saaga opinion saaga est-ce que opinion la ah dégg nga wax ci maanaam ñoom du ñu du ñu garanti saaga mais dinañu garanti sa libre opinion ci loo xam ne ay xalaat la loolu mooy li am mooy li ne ci àddina bi donc ñu bëree bëri jànguñu dañu foog ne boo demee ci beneen réew rek foofu Sénégal amu fa atte ah kay réew yi dañuy dimbalewante dafa am entraide judiciaire ci diggante réew yëpp ci àddina yi bokk ci Nations Unies Sénégal tey su fekkee woon ne euh, loolu am na dañ koy indi facilement wala ñu tëj ko foofa lañ fa la mu war a tëdd. donc da nga jàpp ne si bëggoon jug saafaral ko waaw su fekkee ne maanaam saaga bi mu saaga nit ñi kooku état Sénégal mënu ko ci porter plainte mm-hmm. waaye. Eh, ñoom bu ñu bindee ambassadeur seen ambas dañu bind seen ambassadeur il faut mu joxe avion. Mm-hmm. bi bu Canada bi ne fii. bu leen kooku ne kooku du amul opinion politique amul parti politique mësuñ koo tëj mësuñ koo lii day fen rek bëgg fu mu làqatu nangam boobaa ñoom dañ koy jàpp jalax ko ci avion bu jëm Sénégal. Euh, ba tey euh, ñu gis euh, démb benn live bu doy waar mu defaat ko encore. Mm. ci koo xamante ni booba léegi mu ngi taxawee woon na taxawaayu di ko défendre. Mm. ak di ko soutenir kii di Ousmane sonk révélation yi nga xamante ni. Mm. moom moo laa moo gën def na ko ci moom démb vidéo yooyu suscité na polémique bu bari tey fii ci Sénégal noo ko jàngatee. non gisuma ci jàng xam nga moom ku fen benn yoon fen ñaari yoon fen ñetti yoon fen moom boroom bu ko bu xam xasee am benn rek. dootul am caat waaw yu demee rek moo cay tegu. waaw mais waaw fenkat bi fenkat bi la fenkat nag danay wax dëgg mais wàllu googu euh, gisuma lu mu wax ne lii diwoo ko def mi ngi nii firnde baa ngi nii non non dégg naa rek li mu wax ne dana génnee la ci aju mais man loolu awma ci dara lu ma wóor Euh, te itam du ma ki nga xam ne man maa ki concerné nii ma def bu neexee Sonko mi nga xam ne tudd na ko mu def noonu mën na génn ne lii du dëgg lii nii ku nekk nag wax dëgg yàlla mm-hmm. euh, euh, saalum saalum ñu ne mm-hmm. pesam kaaba borom ma koy fayal boppam loolu rek la am na solo alors bëggoon naa ñu waxtaan ci kaaw ki nga xamante ni mooy Mimi Touré nga xamante jamono bi dañ ko dénnu ci ay fonction wam Euh, mu jur tamit coow lu bëri ci langue euh, politique bi noo ko jàngatee mbir mi. non amu ci lu may jàngat. Mhm. parce que euh, moom président Macky Sall yàgg na ko wóolu. yàgg nañoo ànd ci wàllu politique. ca mandaam bu njëkk ba ci législation yi passé mhm. xëy na ñàkk déggoo am na ca am na détails yoo xam ne mënuma koo am pour mën a xam ndax président bi lii moo def noona la wala du noonu parce que xëy na am na yu ne ci biir am na ci ne ci suuf doo ko xam mhm. waaw waaye li moom rek mën naa ko constater rek kon loo xam ne yëg naa ko mhm. mais sans ma am ci une opinion d'accord ah, am na solo du ñu jug ci euh, jotaay bi te waxtaanuñ ci euh, waxtaan bu am solo bi nga xamante ni moom euh, Ousmane Sonko amoon na ko ay partisans foofu ci Kër Massar Euh, muy meeting boo xamante ni euh, jeunes yu bëri dem nañ wuy ji ko. Hmm. gis nañ euh, kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko par rapport ak procès bi nga xamante ni ci la ñuy dëgmal hmm. kàddu yi yëkkati ne du dem wuy ji waaye it lu mu jaral ki nga xamante ni muy président Macky Sall jaral na ko ko noo ko jàngatee jamono bi ku nekk ngi yëy yàbbi ci situation boobu mais ñu bëri tamit du ñu waxante dëgg tiit nañ ci ana lan mooy ëllëgu Sénégal jamono bi. en tout cas dox ci wàllu opposition. Hmm. ala kulli xaal moom Ousmane Sonko xale la maa ko ci jë maa ko ci njëkk a jaar waaye buñ ma wooyee wuy ji na buñ ma tëjee tëdd na maak sama rak siit la mi ba suñ génn jotee génn nañ dem doxi suñ soxla liggéey suñ liggéey def lañ doon def waaye maanaam man daal du ma taxaw ne bu ma yoon ooyu du ma wuy man duma ko def moom nag ma wax ne du ko def bu jotee ñu xam ndax dana ko def wala du ko def beneen côté la boo xam ne euh, xam nga euh, ñàkk a maandu paasewul bëgg a euh, nettali génti jàmbur mm-hmm. waaw génti jàmbur la mënuma koo nettali mm-hmm. gis naa daal ndaje ma gis naa na mu toll mm, gis naa dégg naa la mu wax mm-hmm. waaye loolu bu doon maa fa taxaw du ma man du ma wax loolu waaye nag moom it la tax mu wax ko moom moo ko xam d'accord li ga li euh, olof di wala kecceen ma ci boobu dafa xóot déet kecceen ma ci loolu lu ñuy dégg nañ ko d'accord waaw ah. alors euh, bëggoon nañ xam tamit sa avis ci situation dëkk bi jamono bi fii ci Sénégal ndax euh, ñu ngi dëkkmal ay élection tamit bu yàggatul la ñuy wax gis nañ ni dëkk bi xawee yëngatu ku nekk yaa ngi fëgg sa dënd naan mën opposition mu ngi am na mu parti au pouvoir mu ngi am na mu wax nga ko sànq euh, tey situation bu nekk ñëw na fi fii Sénégal et on a su vraiment gérer après yooyu yëpp daal di jàll Sénégal jamono bi ci walum euh, politique noo ko jàngatee. non ëllëgu Sénégal bu soobee yàlla 2024 euh, danañu wote bon léegi nag. conscient bi li mu wax gis naa ko ni ñëpp gisee mais lii ñu xamul mooy constition mën nañ ko tëkkalee léegi nañ jàpp rek ne diw mii dafa am ñeenti soxna tey ci tey mënul takk dem takk beneen soxna muy juróomeel parce que l'islam mën wax na mënoo passé ñeent waaw léegi ci ngoon mënul takk soxna si mu bëggoon a takk waaye su kenn ci guddi gi kenn ci soxnaam yi dee na bu xëyee kim mënuloon a takk démb ci ngoon mën na koo takk tey en d'autres termes constitution dafay dund di dee constitution moromu constitution bu bees mooy ñëw rey ko ñaari constitution duñu amandoo constitution ba doon wax sept ans dee na mhm. bi wax cinq ans juddu na

altine la bi tarata la le mandat est de 5 ans nul ne peut faire plus de deux mandats d'accord kon nak deux mandats de cette constitution s'entend légui nak arithmétique lim lay jox yow en tant que Macky Sall la watalé 2024 trois mandats nga am arithmétique.

waaw li ci kanam rek lay fi mu rek lay lay kii ba ba muy jeex ba beneen condition ñu waxaat leneen mm-hmm. loolu rek la d'accord am na mm-hmm. solo mm-hmm. Euh, ba tey bëggoon nañu waxtaan tamit ci li nga xamante ni mooy euh, dossier ki nga xamante ni mooy Adji Sarr ndax euh, dégg nañ tamit ñu tudd la ci boobu la dossier it est-ce que mën nañ xam ndax da cee laale wala yow ak Adji Sarr da ngeen jot a déggante wala da cee def ay jéego <laughs> yow xool nga bu baax ah damay euh, laaj déedéet moom waxoon ne dooma laaj yooyu laaj c'est-à-dire que Adji Sarr xaw ma ko nii daa naa ni def d'accord musuma koo gis musuma koo dégg téléphone d'accord dégg nga loolu mooy li ci ne son mbokk mi nga xam ne it moo jëloon liste jox ko ko ne ko liir ko wax naa ko li ma ko war wax mm-hmm. wax naa ko li ma ko a wax ndax moom sama samay au moins sama fukki doom yu ma njëkk am ño ka ca gën a ndaw moo ko mag am naa nag lu fukki doom mais dem naa ba fukki doom ñëpp mag ko xëy na onzième ba wala douzième ba lay maaseel waaw waaye nag li am solo mooy la ma ko wax yaakaar naa ne dégg na ko mooy na wax ci Baay Ñas te bu mu wax ci ca boo xam ne da ngay def ak moom diil comme moom mu utilisé baatu diil dañuy def diil nga laaj leen six cent millions ma ne ko loolu ñun mën nañ la ko jox fii te doo doo doo doo wax ci euh, jigéen joo xam ne maara day taali ndax jigéen ji wax na tëdd naag diw tëdd naag diw tëdd naag diw kooku ah xaw ma ne ko olof di tuddee waaye man caga laa xamoon am na beneen tur na ngeen wax ma ko mu tudd tur waaye ki ne ma diw tëddee na waaw beneen bi xanaa dañuy jàppal xelu nit ñi ñoom ñiy wax loolu dañoo wax ne ndaw si lañ bëgg mu ëmb ñu indi nit ñoo xam ne ñoo gën a seer deret Sonko buur ba Jolof ma buur ba jolof xam nga mooy kan Aly Ngouille njaay buur ba jolof da nga jële yow sedere di ko dugal ci kii pour que Sonko jur ko te yow ngay ngay buur di doomi buur di sëti buur ah non c'est pas possible kon man waxi noppi xanaa ah euh, euh, dédete Khalifa Niass xanaa duñ ko saamal ku ku ku mu neex yooyu sa euh, maanaam nam demee ñun dem nañ ba ca njoloxtoon la

mang ngi fi macha allah ak ñeenti soxna yu ma lew doom te ay ndaw lañu waaw kenn ku ci ne ki ci gën a mag ak ki ci ndaw yëpp ki ci gën a ndaw yëpp vingt ngay wax teg ci dara xam ne vingt et un vingt deux vingt jëm noonu aw ma kon man maa ngi ay ndaw te macha allah ñu ngi may jural ay doom wax naa wax naa la ne la maa ngi koo xam ne mi ngi nàmp ba tey am naa ñaar ñuy nàmp waaw ñaar ñuy nàmp waaw ak ñaar ñoo xam ne fer nañ waaye ñoo mag ñaar ñi nàmp loolu ci ñaari at yi la xanaa loolu war naa sant yàlla ko am ñeenti jabar a ah, yaakaar naa ne am nga loola doy ba doo wuti ay caga ak yeneen am na solo leeral boobu nga andi ndax hmm. question la boo xamante rek internet ñu ko doon laajte bëggoon la ko jottali dégg waxaatuñu ko parce que loolu kii la rek xam nga neem damay diil pour am xaalis c'est pas comme ça hmm. mais Baye Niass am na ñoo xam ne ay buur lañ mais seen nguur ya bokk ak Baye Niass dara moo leen ko gënal ñu ñu ñu ñu folleeku am na ñoo xam ne milliardaire lañ en dollar mais seen alal yëpp Baye Niass leen ko gënal waaye quand même yow ngay doomi Baye Niass waaye waaye bàyyil caga ji nag nga wut te itam boo amul nga yem ci nga am rek euh, ñu ñëw ñëwaat ci rek euh, point bi ñu njëkkoon euh, éclaircir soo ko mayee hmm. muy le cas de Salma ndax euh, ñu ngi laajte ndax dafa sëyoon ak ki nga xamante ni mooy Aliou Cissé. kii sëyam bu njëkk mi ngi nii yéen ko gis sëyam bu njëkk barki démb la fii. Mhm. mbooleem kii bi wër na mbooleem kii bi. kon boobu tamit ay tuuma la. ah dama ne. Mhm. xamul sax kuy Aliou Cissé. d'accord mosu koo gis ma ne dama la wax ñaari ci Salma. Mhm. benn bi. moom dafa ñibbi si njàng. mi ngi doon jàngi unis mat la def mu jàng nekk actuaire nekk na ci banque bi gën a ci Amérique mooy West Fargo liggéey na fa juróomi at fi mu ne nii ñu ngi koy door a doon mais vice président vice président banque bi gën a rëy ci Amérique moom Salma bu bu signé de dollars day génn te américaine la te ne woon na dafay porter plainte waa parce que Amérique ak Canada benn lañ man ne ko defal ndànk mais bu ko laajee avocat banque bi moo koy tëjlu yoo xam nga waaw li li waaw li ma ne barki démb la door a sey mi ngi door a am doom benn doom bu jigéen mi ngi ko door a am xamul Aliou Cissé xamu ko musu ko koo dégg defe naa leeral yooyu am na solo mu ni euh, point yi ñu bëggoon waxtaanee yépp euh, jot naa ko euh, laaj. maanaam ma waxaat la ko. Mhm. Salma mosul sëy lu may bu yàggul madam Ndiaye la jëkkëram Ndiaye la sat mhm. fii lañu sëyee ci kër gi photo yaa ngi fii mi ngi si internet boo defee sax boo demee ci YouTube boo defee Salma rek Salma Niass rek ñu génne la mariage bi. dañ mhm. ci génne lu mu ëpp yu bokkul. xanaa loolu leer naa ñi kon euh, ndax dafa am ci sa famille. sa hmm. entourage ku doon sëy ak Aliou Cissé. déedéet. sama rakk bu jigéen. Mhm. moo doon sëy ak bàyyi Aliou Cissé. d'accord. olof nag nee nañ fenn wu ne am na ëkk. Mhm. mais loolu man duma ci dem damay bàyyi. d'accord euh, nekkuma pour leeral loo xam ne kenn laaju moo ko. man fi ñu ma wax rek fi laay yem. lañ waxul waxuñ ko bu ñu waxee leneen ma wax leneen. Euh, defe naa am na solo. moo hmm. mel ni jot nañ waxtaanee euh, ponc yi ñu bëggoon waxtaan hmm. yëpp euh, laat bu moyee nga am loo ci bëgg a dolli loo bëgg a leeral. déedéet ah, bàyyi Aliou Cissé boobu Alassane Cissé. Hmm. France la gaañoo mi fii lañ ko indi. denc ko fii lañ ko dëjee ci kër gi ak sama rakk boobu nga xam ne dellu na France ndax foo la ay doom yu sant Cissé nekk. te ñooñu kii professeur la à la kii. chercheur laboratoire de recherche la yor maanaam macha allah ñu daal lu xam-xam di maye. ñu nga foofu. Euh, li ma la bëggoon laaj mooy est-ce que tey. Hmm. bu démb doon tey di nga doon euh, jéem a lëkkalool wala dugg ci li nga xamante ni mooy politique ndax bu ma la dégloo ci sa wax bu baax euh, politique tey moo tax nit jàll la baat wala nit. jéem a yëkkati politique taxul. bu ñu bu ñu génnee cadre politique bu ñu xoolee casquette homme religieux bi gis nañ dañ la jox cër. te kenn mësula ci euh, jàll baat wala wax la lu mu la war taw mm, mm. mais tey côté politique bi peut mooy may occasion euh, nit ki mu taxaw ne Ahmed Khalifa Niass kat lii wala laa wala lee ah, xam nga loolu am na barki démb ci li nga doon wax ci affaire Adji Sarr bi mm-hmm. mais dama daal di déceler affaire fi mu ne mm-hmm. ndax dafa am lu jiitu loolu mm-hmm. loo xam ne du ma ko wax parce que kon damay mel ni damay surcharger sama mbokk mais xam nga xam nga ndaw si Hélène xaw ma naka mos na fee wax ne Sonko ñëw na fii dafa doon wax ne naa dox diggante mag kooku ndax maay sëriñ mag yooyu mais dama def démenti ndax ma def démenti parce que dama ne Sonko ñëw na fii di sama morom bi doom sama doom yu bari sax ñoo ko mag mu wóolu moo wax man lañ wax ci affaire u jàmm la ak yeneen a waxuñ sax lu jëm ci affaire u Adji Sarr wóor yàlla dégg kon bu toogee dégg ne ndaw si dafa wax ne man maa wax loolu xam nga kon ndeke kii li ma ko doon wéet ak moom ak yëpp ndekk def maa jaay man loolu <laughs> man deret ji ma am borom du woor du def leneen loo xam ne seetoo ci yàlla ñun ñun luñ mën a def rek yàlla luñ ci jiital d'accord hmm. euh, jamono affaire politique waaw taxul ma am ci noon mën naa ci am ay adversaire l'adversité en politique est momentanée mhm. waaye aw ma ci noonu. kon rëccuwoo benn yoon te ba léegi sax bàyyeegu ma. Mhm. maa ngi bàyyi ndànk-ndànk na xëy na bàyyi naa quatre-vingt-dix pour cent yi. Mhm. parce que sama parti mi ngi waaj a def congrès. Mhm. congrès bi bu ko defee damay jël rang bi jox ko ndaw yi. ñoom ñu dem doxali. man ma toog suma kuréel sama euh, samay jaamu yàlla ak yeneen. fekk li ma war a def def naa ko mais réccuwuma ko. parce que politique <clears throat> mooy fa ñuy. jëlee ay cër ci réew mi te cër bi boo ko demul jëlal ko sa bopp keneen mën na nekk sax woyu dem fa la jël cër ba dooree ko yow mën nga nekk tey médecin tey boo nekkee médecin jàng ba yu bëgg a dee nga dem ci waa ji woo ne BFM la am ñu namee ko directeur hôpital mu di la yónni médecin bi professeur bi di la kii di la annoté man laa dàq man laa sanctionné kon nag loola pourquoi nga di ko ko bàyyee mu di la ko def man yëf fii dama gis ne ñun ñaseen naka jekk dañoo bàyyi gannaaw ndax li ñu noonoon ak tubaab yi di xeex ak ñoom suñu maam ak yooyu tax suñu kër duñu dugal seen di doomu école pour continuer xeex boobu donc man ma ne nañu naa wane ne yoonu politique bi nit mën na cee euh, dem ba nga xam ne ah euh, amaana buñ lay tooñ it mën a am doole joo mën a fayoo. d'accord te politiciens yëpp ay tooñkat lañu. d'accord mhm. bu ñëwee ci accusation yi nga ne Françoise Hélène Gueye moo ko teg sa kaw. Mhm. maa ngi fàttaliku bi Ousmane Sonko ñëwee seet la. Mhm. Euh, man bokk naa ci ndaw yi nekkoon fii. waaw ci ci suuf. trois jours boobu. waaw ca gannaaw ëllëg ca gannaaw ëllëg. dafay dellu si wax ne moom képp a ànd. waaw d'accord léegi bu ñu wax. booba nag fii lañ jaar. jaar ne am na ci gannaaw Casamance. seesi na la ñaari yoon ñaari yoon. kon bu njëkk bi bi mu ñëwee ak taskatu xibaar yi nekk ci suuf ba mu weesoo ngeen yéeg ci kaw. fii bokk lekkandoo. waaw naa ku mooy ñëw ba sa kër toog. ndox yow waaw wallaahi. nga après ñëwaat na seet si hmm. ni moom. dong moom kenn ànd jamono bii lan mooy sa relation ak Ousmane Sonko ndax yéen a ngi déggante. boobu lañ gëj a déggante nag boobu mu fi mujjee ñëw. Hmm. ci la ñu gëj a déggante. la ma ko xaw ma ko man awma téléphone am. Hmm. Euh, moom euh, wutuma wutu la jokkoog man ndax am na ñoo xam ne. Euh, maa ngi moom ñoom benn lañu xëy na sax ñu bokk sama famille te ñu nekk ak moom donc ñooñu ku ci waxoon léegi mu ne ma Ousmane mi ngi lay seet wala nangam mm-hmm. loolu nag la tax man xaw ko utuma koo xam itam parce que moom moo ma ne woon daal yow rek laa wóolu ci nga dox jàmm sama diggante ak Macky Sall bés bu jotee mm-hmm. yow laay waxal mm-hmm. ba léegi nag waxuma ko est-ce que naa dem ne ko. Euh, affaire bi lu tax jotagul. mais moom comme def na effort ñëw ver yow ñaari yoon. Mhm. benn bi mu ñëw euh, fësal ko toog comme ni ma ko waxee bokkandoo ak yow lekk ku la wóolu mooy def loolu. Mhm. deuxième fois bi nee nga ñëw na moom dong ànd. Mhm. Euh, tey yow en tant que mag en tant que kilifa. gisoo ni war nga mën a yëkkati sa téléphone saa fa teg moom waxtaan ak moom. conseiller ko yow soxna da nga fàtte ma koo xamul téléphone am noo koy ooyee. mais numéro Ousmane Sonko mënu laa wax mënu maa tëj mais ko joxuma ko. bu boo bàyyoon numéro xanaa xamoon ne woo nit ci numéro am te ko moo nga dajji buntam dugg benn la nit ki waroo la te war a ubbil buntam nga door a dugg fu la war jox numéro nga door ko oo lu mooy bu nitu public la nitu public moom numéro am état la numéro public la waaye numéro privé amoo droit woo borom te joxula ko d'accord ne la boobu mu euh, ci biir seet si boobu gis nañ tamit euh, bu yàggul ci di Malick Gakou ñëw na si la moom ak kii ak euh, Diop Decroix ak euh, ak euh, Déthié. mën nañ xam ak ñeneen déedéet man xam nga sama bunt ma ko da ngaa ñëw rek dugg fii moom ku fi ñëw rek dugg bunt bi tëjuwul pour kenn waaw ko képp ku fi ñëw dama laa seet si woon bisimilah ku ma oo. tey da ngaa taxaw ci défensive bi. déedéet non ci non taxaw ma ci défense bi. man ah. xam nga ñooñu man am wax naa ko publiquement bari naa ay xarit yoo xam ne ay leader lañ. Mm-hmm. ci biir opposition bi ci biir euh, yeewi amma Ablaye Wade moom jarta wax jarta laaj kooku maa ngi moom benn lañu du dëgg te nëbbu ma ko na fi dama fay dem maanaam umpante wu moom ci kii te itam dafay dox bokk sama digganteek moom même euh, sama rakk bu jigéen bi bi borom këram gaaño muy ki nga xam ne papa Aliou Cissé la mmh. moom yónnee na fi délégation bu mag nga xam ne ay ancien ministre bi ngi ci ba paré def enveloppe yónnee jaxal ak lolu koku man ak mom ben lañu donc bo je opposition bo ci diré Ablaye wat dindi ci ñi ma la wax ni Sonko dindi ci déccé dindi ci de croix de ma li gap gaku même Serigne Moustapha Sy la ci dess du bari ndem dara dana du bari te ñoo ñep ma ak ñom comme bu d'accord Euh, mu mel ni euh, waxtaan bi fi mu ne nii euh, jeex na takk dëgg la léegi waxtaan waxtaan nañ ko. di mhm. a la nga joxe rek sa mot de la fin la tamit mhm. tàggatoo ñi nga xamante ne ñoo ñu seetaan en direct sur Opinion TV boobu ak léegi. waaw li may wax daal mooy ñun jàmm la ñu ci réew mi. Mhm. te du ñu benn nit. bu bëgg réew mi buy jéem wala muy wax loo xam ne lu réew mi salfaañe la. luy salfaañi réew mi la. tey jii bu ñu nit joxewoon mot d'ordre ne nit ñi nañu génn pour salfaañi réew mi ñun dañuy joxe mot d'ordre ne ku bokk ci ñun ku ñu déggal bu mu bokk ci loola waaw ñun dañuy wax ne affaire ay duñ ko wax Baye Niass ca mille neuf cent soixante lay war a boobu dañu waxoon Sénégal nañ wootee oui ou non contre la colonisation

Bob ak léegi Opinion euh, TV di leen jox di dajé très bientôt mm-hmm. ci yeneen jotaay inshallah allah euh, ngeen nekk si jàmm fiix boobu je ne saurais tamit vous quitter sans pour autant remercier l'équipe technique qui nous a accompagnés tout au long de cet entretien euh, di leen xamal ni que ñu ngi waajal ay yu am solo ay émission yu am solo lépp rek ngir jox leen li gëna a ci dëkk bi inshallah Opinion libre. Opinion libre. La voix du peuple. opinion libre. Opinion libre. Opinion libre. La voix du peuple. Opinion libre. Opinion libre. Opinion libre. La voix du peuple.